Sénégal am na loi boo xam ne mooy encadré lu jëm ci wàllu formation de sécurité privée dans les grandes démocraties nag am na armée privée am na police privée bu ñu sukkandikoo ci xalima ak Assane Samba ci yéen kaay gii di réew mi quotidien l'observateur xëy ci wax ci mbiri Serigne muudu Kara yi journal bi nee na enquête bi demul jéng dikkul mbay laar mën ñu ko woowee noone ndax enquête bi dafa lëndëm pression yu mag la ñu teg ci gars yi ba ñu génne Serigne muu Kara ci enquête bi ndax jamono ji moom Serigne Modou Kara bokkul ci enquête bi yéen a kaay na pression moo tax journal bi nee na centre de redressement yi nga xam ne Serigne Modou Kara moo ko teg ci ay xibaar njort nañ ne lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay nit ñàkk nañu ci seen bakkan lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci centre de redressement yu Serigne Modou Kara yi tey jiite nañu janoo ak procureur mu letti leen wala mu firi leen Serigne Modou Kara wut na ay avocat ngir ñu défendre ñi nga xam ne teg nañu leen loxo yéene kaay gi di source ñu xëy jànge fane aéroport international Blaise Diagne ginnaaw ñaar fukk ak ñetti nit ñi nga xam ne tegoon nañu leen loxo ngir ay faux test ñu jóge woon ca réewum Nigéria ak Côte am na fukk ak juróom ñoo xam ne démb tegaat nañu leen loxo ci aéroport international Blaise Diagne dañoo yoroon ay faux test covid 19 yéen kaay gi de mu ñu xamalal ñu fukki at ak ñaar ginnaaw bi ñu sosee parti bii di APR démb nag ñoom doon ñu fête seen anniversaire ba waaye nag mbir ma sëful xoram sëful suukar njiitu réew mi di Macky Sall mi jiite parti boobee ñëw la bëri na ay cadre yoo xam ne démb teewuñu sa ndaje ma yéen kaay gi de Les Échos ministre yi nga xam ne ñoom lañ tëbal fan yi ñu génn kenn dikkul ci anniversaire ba yéen kaay gi di Vox nee na bu ñu waxante dëgg anniversaire APR APR bi ñi nga xam ne ñoo sos APR démb kenn gisu leen fa maanaam Macky Sall ñëwul membre fondateur yi ñëwuñu Mbaye Ndiaye moo fa nekkoon di wax yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na accord de pêche yi nga xam ne moo dox diggante Sénégal ak Union européenne waaye Union européenne ñoom nag taqal nañ ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu woowa ndax ñoom nee nañu armateurs yi di mareyeurs yi di industriels yi ñoom ñëpp consulté nañ leen ci accord de pêche yi yéen a kaay gi di enquête ñu fekk fa nga xam ne moom lañ dénk wàllum napp gi ci na bateau gënal bato yu Sénégal yi yéen a kaay gi di Libération ak réew mi quotidien nee na Mamadou Faye mi nga xam ne moo jëloon doomam ju toll ci fukki at ak juróom dugal ko ci gaal yi doomam joojee mujj ñàkk bakkanam Mamadou Faye démb la ñu ko doon àtte ca Mbuur waaye nee na nañu ko ñaari ati kaso yéen a kaay gi de la mu ñu xamal lan ñu waa MFDC jamono ci commencé nañoo yéeyaat fitna fi nga xam ne mooy sa Casamance ndax gis nañ fa ay bal yoo xam ne soqar bi nañ ko ci ay ndaw am na ñetti ndaw ñoo xam ne ba léegi kenn gisu leen yéen kaay gi di réew mi quotidien nee nañu waa MFDC kese la ñu njortu ne ñoo tiire ay xale yoo xam ne dañoo nekkoon ci forêt classée bi yéenekaay gi du l'Observateur mu ñu xamal lan ñu niki démb chambre criminelle bu Ndakaaru yëngu na ndax dafa am benn waay bu tudd ba Badiane moom moo dóor doomam bu am ñaari at ba mu ñàkk bakkanam démb ba ñu koy àtte bi ñu ko laajee li mu xamle nee na doomam juuju nga xamante ni génn na àdduna moom moo ko dóor te la ko waral doom ji dafa tëdd ba guddi muy jooy yàqal ko ay nelawam yéenekaay gi nee na démb la ñu ko doon àtte sa chambre criminelle yéenekaay gi di Stades ak Record Ligue des Champions tey ji